nag lancement officiel mooy dañuy tàmbali mais li recensement bi bi ñu ko defee jël nañ ci tolloog ñaari junni nit ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom la ñu war a ji jox xaalis boobu euh, lim bi toll nag ci diggante ñaar fukki junni ak ñeent fukki junni waaye wute bi du nekk loo xam ne da ngay jël rek jox ki déedéet parce que recensement bi suñ fa demee da ngay jël turu nit ki mais mu wax la lan la yàqule donc en fonction maintenant euh, nu mu gën a tare ke gën a tar mooy ëppale noonu lañ ko mën mën a ci biir Touba dinañ ci dugal lu tolloog trois cent soixante-dix-huit millions huit cent mille. ñu ngi ñaanal waa Touba yi nga xam ne ñu ngi kii métit métit yi jafe-jafe yi yàlla génne leen ci li nga xam ne moom la nguur gi mën mooy jàppale leen jàppale leen euh, en essayant euh, ndox mi nekk seen kër yi ñu génn ko mais également wut wutal leen as tuut soo xam ne dinañ ko def ki seen i loxo nga xam ne dinañ mën ci période bi nga xam ne école ubbi na dinañ ci mën a jënd. ay fourniture dinañ ci mën a jënd loo xam ne dina leen mën a permettre seen kër yi ñu mën koo yore yorin bu rafet. yàkkamti woon nañ ko mais nag li tax tamit ñu gën cee dara suñu xel mooy bi mu amee li ñu defoon mooy taxawaay bi nga xamante ne bu am solo la ñu def ko muy indi woon nañu fi ay ab dund boo xamante ne bi yàlla dogal na ne ñun jot nañ ci dund boobu.